maa ngi toog ak Mohamed Ali Ndiaye waaye arbitre baa ngi waaj a fi mu nekk nii après dinaa jël Ahmed Tidiane ñu waxtaan ak moom waaye daal ñi ngi jëm nag ci combat bi diggante booy ñaa numéro neuf victoire moom la xale bi amagum benn défaite la amagum Zoss am na neuf victoire am na huit defet ñoom ñaar ñi ngi ci digg géew bi arbitre bi sifflé na 19h39 minutes ce dimanche 8 juillet 2012. Mm. mi ngi ci biir gis ngeen ko noonu gros plan. ndeysaan Malick. Boy Niang mi ngi noonu tamit. kenn ku nekk mi ngi jiital tànku ndeyjooram. bëri njool la ak ndaama. kenn xamul njool sax na. xaw nañu tolloo tuuti. donte Boy Niang moo sute ay centimètres. neexoon nañu. waaye daal Zoss mbëru expérience la Boy Niang mbër mu ndaw la nekk ci yoon sànq mbër mu ndaw mi daan na mbër mi ko ëpp expérience ndaxte dooley ndaw moom moo jël foofu victoire ci kaw expérience ndax tey loolu lañuy ñuy gisaat ci combat bi wala boog expérience su Zoss dina fexe ba juumloo ki nga xam ne moom mooy Boy ñaa point d'interrogation ba ci kanam. waa xam nga Malick mbër mu ndaw. suy bëree mbër bu mag bëri bi mbër mu mag mbër mu ndaw mi moo koy bëri sos nii mu taxawee tey dafay calculer rek pour juumloo ko su ko mënul juumloo nag ah nga xam ne nag kon kii ne waaye daal li wër-wër mooy bëri mbër mu ndaw ak bëri mbër mu mag mbër mu ndaw mi mooy jéem mooy bëri saa kees kon gis nga ni mu bëree kee Moussa Dioum gis nga combat bi dañuy naxante nii rek waaye li wër-wër mooy ki nga xam ne mooy booy ñang booy ñang dana dal si kaw k xam ne mooy euh, sos te te it Malick loolu mënul ñàkk daal La pression monte. L'adrénaline est à son maximum. Les cœurs battent la chamade à Pikine, aux Parcelles Assainies et ici au stade Demba Diop. bi sifflé na attewaat na leen wax na ak ñoom sifflé waat na. watoo bi Malick moo yàgg il faut mu wax ak ñoom pour ñu changer rythme waaye sos lii mu jël nii il soo tey bootuwul ah xëy na mu mu jóge si waaye daal li wóoru mooy booy ñaa mooy xale mooy ndaw moo bëgg a dem moo nekk si yoon kooku na moo war a bëri moom. Zosa ngi siiñ taxaw fi mu taxaw. waaw da koy booy ñaa taxaw fi mu taxaw. il faut mu nax ko pour mu man koo daan wala mu juumloo ko loolu mënul ñàkk. booy ñaa ko fixé noonu Zos mi ngi taxaw kenn deful benn pas fekk ji sa morom. waaye problème bi kay Malick benn pas. problème bi mooy def na ñaari pas. problème bi Malick mooy. booy ñaa ñi mu bëreel ñëpp dafa dañ koo attaqué mu bëreel ñoom daan leen waaye bu sos taxawee day daal di jaaxle mi ngi xëcc nag si digg jéew bi pour man bëreeg moom waaye daal sos nanguwul jóge fi mu nekk te it daañu bëree fi mu taxaw jógewu fa waaw booy ñaa delluwaat na ginnaaw ni ko kaay mu ni ko ñëwuma arbitre bi woowaat na leen wax ak ñoom waaw bu yàggee ñaa moom mi nga xam ne moo war a dem te ni ko dooma téye dana bëre bëre bi loolu mënul ñàkk deuxième avertissement verbal beneen avertissement moom bu ngeen ko amee arbitre bi dina leen avertir ñu dagg seen xaalis. waaw ah, xaalis moom ba léegi. xaalis moom Malick mënuñu koo ñàkk bañ a dagg. ndax combat bi combat calcul la. saak eh, booy ñaa bu daanee xam na lu mu koy jural ki ne mooy eh, sos bu daanee xam na lu mu koy jural combat bi nag foog ñu calculer ko. dëgg la calcul bi bari na gën nañoo jegente Boy Niang école de lutte Boy Niang neuf wala boog 10 combats 9 victoires une défaite ama neex moo ko daan Zos 9 victoires 8 défaites dellu si na moom tamit ginnaaw ndam lu rëy li mu amoon ci guy gi pour bëgg a amaat ndam dem ca kaw daanoon na Djina Mori fële nga moo di Banjul ñu ci profito di nuyoo waa Banjul yëpp waa Serekunda waa Bara Pakalanding Soma ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu arbitre bi ñëw na avertir na Zoss passivité. waaw Zoss moom xam nga avertir na booy Niang ñoom ñaar ñëpp passivité. ku ne ñaata ku ne ñaata avertissement la am. ku ne benn nga amagum. waaw yi ci des dafa wax ak ñoom artu leen artuwaat leen ñu delloo buum ca boy boy ba moom mu ñëw avertir leen ku ne am na benn avertissement. ah li wóor daal mooy xam naa ni moom ñaa war na bëre waaye soseer war na bëre ndax bëre ñaara kuy def kenn du bëre te it mën nga ne sos. mbër mu mag la tey tànk lay bëree te xam nga sos mi préparé na combat bi te néewul doole. mi ngi ni tekk tekkaaral jiital tànku ndejoor adversaire am jiital tànku ndeyjoor ku ne def écart angulaire taxaw di déglu sa morom booy ñaar lewtoo def ñaari pas ni ko yow it defal paa ñu daje. waaw mi ngi sos di tekk tekkaaral taxaw jonn ni soldaar bu jam fag. ah sos moom xam nga mbër mu mag la si si làmb ji te it mi ngi sol takk yor protestant. xam na ne booy bi boxeur la te day xeex xam naa loolu tax mu jël prothèse daa monté ko moom sos. Zoss daal mi ngi taxaw di ko déglu booy ñaa léegi-léegi mu def benn pas ñaari pas téyewaat boppam. waaw sos moom dafa calculé ni xay na ñi mu daan ñëpp dañu koo attaqué mu daan nen tey nag mu ne naa taxaw ndax mu dal sama kaw pour ma mën koo nax. waaye dafa yaakaar ma Zoss waay dana jóge Malick. buñ la dooree mbaa doo wàcc. non du wàcc ci booy bi waaw tuddee ko soog bi yoonal la rek waaye lu wër-wër moom dina dal si koom. deux avertissements pour Boy Niang deux avertissements pour Zoss pour non combativité ñoom ñaar ñëpp kenn defu ci effort kenn bërewu ci Boy Niang passif Zoss passif Boy Niang attentif Zoss l'arbitre les a deux avertissements pour chacun. ah man de maa li jaaxal na ma. boosu sos bi jaaxal na ma. bëre bu amul laalante doy na war a. Ah. waaye nag daal si taxaw sën. sos moom wutul si làmb ji dara li wóor-wóor mooy sos mbër bu mag la te yàgg na si làmb ji. kii nga xam ne mbër bu bëree musu ko bëree. déedéet waaye nag Malick bëre bu nekk dafa am lu mu laaj bëre bu nekk dafa am lu mu laaj. soso gi taxaw di ko déglu. nanguwul sax léwtoo. waaw dina yëngatu xam naa rek bu xale bi dalee si kawam dina jóg. Boy Niang réduire na. waaw. Zoss def na déplacement bu ndaw teewaat boppam Boy Niang téyewaat boppam. waaw Boy Niang si moom moo yor bërëb yi ndax moo war a dem. bu doon laaj bi jigéen sax jeex na. waaye nag làmb ji maari làmb góor la ay millions fu muy génn daañu ko calculer. bàyyi leen seen yaaba ji talaale tey da laale amu fi. déedéet waaye daañu amu fi daañu laalante maari fi. waaye nag père ban la calcul bi yàgg na. dañoo war a bëre na waaye nag allah comme li nga waxoon laal nañ seen xaalis balaa muy jeex daañu yëngatu. ba léegi daal conga amagul. xam nga Malick mbër moom bëggul ku laal xaalisam. kenn dooragul. kenn songagul kenn attaqué wul ku ne yaa ngi calculer calcul bi nag yàgg na waaye yàgg yàgg daal di ngeen daje. daañu daje li wër-wër waaye xam nga comme li ma la wax rek moo si nekk sos mbërum tànk la te it mën nga ni booy ñaar songkat la waaye nag li mu gën a mën a mooy nga attaqué ko jaay ko doole wala nga jaay ko bëre mu won la li mu wane. ay ca sos sëgg na ma ngay lewtoo booy ñaar dagg na lewtoo bi sos taxawaat na. stade bi géwél yi rek ngay dégg. waaw bu làmb way rek ngay dégg. bu làmb toll fii moom. supporters yi doon supporter yëpp noppi nañu. la pression monte l'adrénaline monte les cardiaques n'ont plus de place les émotifs ne peuvent plus se les cœurs battent la chamade mais les deux acteurs sont inactifs inoffensifs Trop de calcul. Le round d'observation a trop duré. ñoom ñaar ñu ngi dimanche juillet 2012 stade Demba Zos Dordorat Boy école de lutte Boy Niang trophée El Mbaye président des communicateurs traditionnels du Sénégal Boy Niang delluwaat na ginnaaw dellusiwaat mais nag daa war a bëree comme lamb ji demee ne te arbitre mooy maître terrain fu mu ko mën a daan naka fa daan soset fu mu a daan yaatu na foo mën a daan baax na daan ba baax na boo dawee song daane ci ginnaaw saaku yi dañ koy accordé ama neex noonu la defoon ñu delloo ko victoire am waaw waaw Cap tëgg deuxième édition gala de lutte 13 et 14 juillet 2012 El Loco drapeau Aïcha Thiam ak Santi Agne buuru tan moo fay daje ak Pascal am na ñu jotu sax jàllale fi ay communiqué ndax gaa yi bëriwuñu. waaw gaa yi bëriwuñu Malick ne waaye nag defe naa daañu bëri léewtoo bi yàgg na waaye si bëri rek la mujje ndax ñoom ñaar ñëpp ñu ay xeexkat yu violence loolu li wóor bu wóor daal mooy daañu daje bëre wala boog seen duñu fayeeku. Zos taxaw Boy Niang taxaw Zos téye boppam. Boy Niang téye boppam Zoss songul Boy ñaa songul Boy ñaa dóorul Zoss dóorul kenn avancé wul fekk ci sa morom balancement de bras loolu rek la ñu gisagum. foog nga ne bu leewaatoo bi yàggee ñoom ñaar doo am ku sonn comme bëri xale la. bi sax taxu koo demee noonu père Baara. kon kon sonn si du gaaw. dem na bar waaye Boy Niang Malick bu jëlul responsabilité am bëri bu du yàgg parce moom mooy ndaw moo bëgg a dem. Ndoso ñu ni tekk di ko déglu waa CNG ñu ngi yëgal askan bi tournoi CEDEAO cinquième édition du 12 au 14 juin 2012 o d'ouverture bi le jeudi 12 à 16 heures au stadium Iba Mar Diop dégg nga dégg nga micro central. waaw ñoom nee na leen xeexu leen. am nga ñoom li ngeen waxoon defu leen ko. dañoo nekkul si digg jëm. boo ñaar met na waaye demul. waaw arbitre bi te arrêté ñaari juge yi dugg si nañu. ndax lii Malick waruñu ko bëre kenn si ñoom laalul sa morom loolu Malick neexul si làmb ji. 10 minutes kay xanaa waragul a mat. non matul. 10 minutes yi waragul a mat. arbitre kat dañoo jommi. ñaar ñu taxaw rek kenn nanguwul a dóor. waaw fii nag kenn nanguwul a fii nag kenn nanguwul a dépassé benn mètre fekk ci sa morom. mais kenn ku nekk sa entraîneur dana wax ak yow nga sens rythme fii nag la coach sa baaxee dana la wax ni la jaaral gauche wala jaaral droite wala mun la taxawal fi nga nekkoon loolu moom mënul ñàkk kenn ku ne yaa ngi wax ak sa entraîneur. dix minutes de Leewtoo dix minutes kenn doorul dix minutes kenn songul dix minutes kenn xusiwul dix minutes kenn gàjjul kenn dépassé wul benn fekk ji sa dama ni lii taxul ñu fay ala ku liyaalin bëre ndax ku lekk tëdd pom waaw ku lekk tëdd pom mais combat bi ñaar mënuñu koo bañ a bëre kenn ku nekk na calcul bi ak diisaayu làmb moo war lii li wóor wóor daal mooy ñoom ñaar kenn mënu see daan sa morom wala dóoruloo ko il laalante pour jéem a mën am nay jamono